Eh, yaare jam tau eh yaare ya, jam i ga an gol le nem mi absa sekone absa sek absa sen gen mame gen sate fa leyelo kaolax village de touba xadama kaolack i ga an absa ke ɓisdonga no yengole meke xaye eh, meke adresse ngor na kita rek mais i an ke ɓisdonga meke xaye ko fog na fan club na be ko éviter kam donc harness maraɓe tan e witta hamo tan ko korum mais ka kadi yato xam no faj sikala ɓe yaade carene e faj sikal ɓe yaade carede rewdu absa garid men absa nam gaɗo yengolen haye nam gaɗo kitara ke a anum konta torop a fela torop ilay in jege luɗol cosan in fata yoko cosan ne fata gayno cosan ne fat in namon cosan ne kara to yanda i jege luɗol keke okin jege luɗol tigum okin jege luɗol o xeetum cosaanu seereer a wara fatma andoona xan i yaa culture seereer a wara fatma andoona xan i yaa o mu i ne'eena rek waro anda wiin o seereer maaga a baya waar eh, oxu ngel a laya seereer oxu layna guitare lay seereer eh, parrain eh, xa taxu en général wiin maak seereer we a mbuganga mbi'an les parrainage ka farena ngel to refe campagne législative ka matiida élection ka matiida da xa waralu kaaga ah waa mais kambaro koy ah, a njaxnoro fa tefandoog seereer a ka ref artiste seereer ke ka ndamtiro kam den a renforcer wo kam den autorité seereer ke fata ndamto artiste seereer ke ndax aar ne waago fad meta mbugna ka fad yaam den rek den mbaago ndamto in o kiin o pogum oxu refna damangan tigof fop a fel mais in i ndetanga ndamanu dig no kiin o a miñ miñ xani unuma yaam i njegeran culture seereer nene i i ndamonte a saɗik a ndamto in Euh, comme nane Oustou Ndiodine likkulna in pierre latrine petit pierre in e ka de la culture ka da ndam ndayo la musique moderne o leyanga musique moderne ten refu par ñoom Youssou Ndour in a jof toog mais euh, sereer fe presque ka ngaƴin ah, en radio ka mbokatan no dara quoi xa waralu kaga koy sax ke waral na kene fop coté ino te ref ke leyonga fat o ten ke ndamta in renforcer u pourquoi Nicolas waage fag garantie a pourquoi pierre latir a waray fo waago fag ya garati a dan den fop oxu refna wara wago main garati a tan yaam o xet le moƴna jaɓo son sénégal o sereer neta fogu bon i mbare njaɓa ndak wa a cin fat i ka saɗik i wa paam to ngot ke i njeg na lal to qoox in ka fad ambosa jerejef ben absa i no tiktok ne parce que mi fogame jegam compte compte tiktok i nga'a no tiktok ne o ɓekteen vidéo la andoona ko ko muurokulok asan euh, a jeg faley fa layoona ten bo faley fe a jojoftoox xa intention num jangono no no faley faaka muuronokuloke ya, asan te ref kam layang rek o vidéo le fi'aam ni a ya coow torop a widoxatna mais ka mbaro comprendre sa na fa ne na no vidéo le fa sa fa lakasane fogre kam degu ya mo serer ka ande ponu o ten paax rek a an te taxo rafa o serer lay ka an na ka ya farit ga tan na ando naye yaam yaam ande yo pono sereer paaxa an te tax o leyanga ka and naye yaca fariƴ rek ka jaxlata den to ka ɗoma den den a ab safane ref nan vidéo fa ab safane ref nan duka fogre xatanama ya ndokinam rok wa yoxum suye um paranga kam wula teg mana refo kiin oxe ref ma anda wiin we ga la personne au personnage maintenant tu refais par exemple xanaa joué à théâtre rôle ta joué a refee kam naaga nandu i to mi euh, dama na xeles mi kam dame wo ko jangnitoogu mais refee comme par exemple ko ñaxa wiin we pour de bonu kaaga xa taxu o seereer yo de jeg esprit de compréhension naaga waaw te ref ke layonga rek ref ke o seereer anda i ka ref o xeet o kiin ka faña yafel fula fa fayda ta jogu ku layanona neewna o fooga ya yafanoyo yaam jeg jom ne seereer a jeg na o xeeto le moƴna jeg jom na a moof o ngik calel te ref o seereer kene taxu ku layoona rek ka yaac farit a foga yefaano te tax o vidéo a jeg na te yaac na demodoor a jeg wa njamb na a jeg wa mbañ na mais ka fata comprendre a yo o vidéo kam suye in pour jangnin ke kam pin ke yaqa to we ndasnano kam pin to kay e, pono yang ndasnan kam mbin ru mayna xana bo xej katen nu mbina to a xejangen mbine xan e, e, yam ku xejate nan bin xana ngal na nge de to ngal na nge da nga refate ka andona ya amu say bala jag i sutno ka neew gaci fa ndabu te kaga yo eh, dawiro tan monas na video le parce que euh, i aussi o lakas ta ref o ñaaƴ a no eh, chaîne télévision fa chaîne radio fa leng a monacé an importance nak ndax dawiro ten monas rek an kay we ñak o mom moom ku a nga ka ando na ya ane ya, rek oxey bug nga anda a jega ka ta ñakke a jega wa na te fa vidéo fan si kana mi ngeen way ando na ya tamit den ndef maaka mu yeddu ya a sup ya ka yeddaamo kaaga num ka def dara kam dama mir ko nja mi fiya gonum nga jofu ka mbaro fiya nga ka na jofe fata layaam o fi'angaam teel telo tek do jafes ya mi gum ka ludul ka na den mi kam bug ma bu bugo xeeto seereer nu ma nan ma mo jana xam ke ref ne ten dong te andoona te ref ke andoona yee te bugum o ŋaayin bo xu refna te a te xooxum i andoya in me i mbogeena o kiin me i mbogeena anda me i mbogeena oxu sañina fogal ma te ref oxe seereer euh, anda tip top ne euh, a jega wa na mbi'at xa vidéo a jangnitaayo comme o vidéo le fi'oona ah, vidéo fa parce que ka jangnita mi moom j'apprécie mais mboɓ ndew ne ndefna no tip top ne a mbi'ata ñak fayda xar o layka ten waaw kem layka den ah. kem laykate mo mayke fog sereer som leytuka muskiro défilé a ah, boga no vidéo o seero xana wemra fo sereer o kenum jega fule me jega fule me to fooge ma xana jeg me yaam a jega coom a jega a jega a jega a mbuge xa layna den ñuxur kene taxu mais wen refna kamana tam ta mbi'a laka sudul noonu a commentaire commentaire négatif u ka yo rek mais ru andina yo ndok kenu commentaire négatif u andoona ye xan mbindum orat hasrafaten kam tiktok no bona daw kan mbog mbin tanga umay connexion o yaam xana min ke bo soɓinum mbindo fadin min ke bo xet foten num mbedone fadin ludul refna fa laka fa vidéo um commentaire a commentaire ka négatif na o xanga jarano ton tum garanga soɓ commentaire fum supprimer tiima to anda min ke bo xet fo mbedoxe fadaam kagam leya den jërëjëf eh, Absa waxey layoga no micro Mbine Yalane TV eh, te ref eh, Cheikh Ngas na inoox ndiki eh, xaro ley ka mbina lan tv eh, mina mtv kem leya den rek te ref fat sereer ke ndeta abonné ko o kiin jele ludul tigum oxu damna meen tig no kiino ru garna xana jaɓin kon fat i ndamanu ke i njeg na abonné kon seen ne seetana yo émission ke na njegama com ke fop ku bugona ka ando naye a yoɓare a leer rek Sen TV xano soɓin ma merci jërëjëf merci Amasa Eh, donc yaga faut internet Nous nous nanti euh ab sale nu abonné nous mbini alan tv parce que faut que aussi no kena felana calel ke eh, abonné nga ba pare la cloche de notification pour tamo jo yoɓan calel ke franchement et ah, amosa jerejef to waxe jerejef i content alors.